un caractère bien trempé qu'il tient de son père, Elhaj Mohamed Mansour, de son parrain, Cheikh H. Seydil Khalif Bakr Si, de celui qui fut son tuteur et protecteur, Seydil Jamil. Dès lors, il est facile de comprendre pourquoi le fils aîné de Cheikh Mohamed Mansour Si Maudo, qui préfère le sens de l'honneur aux honneurs faciles, reste tel qu'il est un pur orthodoxe qui sait fuir les contingences pour se réfugier dans la vérité. Pour cause, le culte de la vérité est la nourriture quotidienne de Serigne Maïzi Mansour, un homme de vertu dont la personnalité s'impose partout par son attachement interpide à la vérité et au désintéressement, une illustre personnalité religieuse

waaye di kilifa képp koo xam ne da ngay safoo Seydi El Hadj Malick yàlla nañu yàlla fayal Seydi El Hadj Malick ba mu ñu mayee xalifa bu mel nii ci respecté nit ci bëgg nit ci fonk nit ci bëgg ñëpp ci njaboote ñëpp njaboote nit njaboote jinne njaboote ku nangu njaboote ku bañ loolu nag le Cheikh Mouhamadul Moustapha bu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin comprendre ba tax tey mu yëkkati téeméeri million ak lu ko teg ci première phase u liggéeyu jumaa ji teg ko ci loxo waajuram waaye daf daf ko doon ci waajuram Cheikh Al Amin wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm yàll na million yooyu yu bari yooyu doon ay tuyaaba yoo xam ne Seydil Hadji Malick moo ko koy fayal boppam ndax nag ah sëriñ boobu ngeen di gis mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy ah sa nga ko defal de te Alaaji Malik ku ko fay guddi mu fay la ba ku ko fay naaj bu tàng mu fay la ker wu sedd guy ak climatiseur si yàlla nala ko suñu borom fulandil jumaa ji nga ko defal ah man banaa lillaahi baytan fi man banaa lillaahi baytan bana allaahu lahu xasran fil janna ko tabaxal yàlla néeg mu tabaxal la pala ci biir àjjana si jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah sa kilifa kontaan na ci yow ñun taalibe yi kontaan nañ ci yow Tiwaawan kontaan na ci yow mboolee mi jullit kontaan nañ ci yow xadara Maalik yi bépp kontaan nañ ci yow jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah man banaa lillaahi baytan bana allaahu lahu xasran fil janna ko yàlla néeg mu tabaxal ci biir àjjana si jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah sa kilifa kontaan na ci yow ñun taalibe yi kontaan nañ ci yow Tiwaawan kontaan na ci yow mboolee mi jullit kontaan nañ ci yow xadara maaliki bépp kontaan nañ ci yow jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah